place publique bi mën naa ne bokk naa ci ñi ko doon xeex bokk moo ci ñi ko doon xeex parce que mosuma woon wu ci dossier bi parce que man tamit sama gis-gis ak sama vision peut-être day nekk ci beneen côté bon je man si c'était man bu ma nekkoon place wu peut-être euh, au début ñu ko doon def dañoon dem rek tribunal civil mu bañ a am pénal parce que j'ai toujours di ko di man euh, lépp luy dugal doomu mbuur prison wala mu am ci problème du ma ko ma ko def parce que je pense que doomu mbuur dafa war a taxaw doomu quoi li ma jàngat mooy man depuis début bi wax naa ko même le maire place publique boobu cantine ñu fi def magasin yooyu vraiment amu foon place benn instant mënoon ñu fa def ay parking payant ak aménager ko ba mu rafet comme ça au moins mu am taaru ville bi tuuti parce que déjà dafa saturé xat boo fa defaasee magasin yi day amaat euh, beneen problème li ma ci jaaxal rek mooy peut-être ñu am ñi jàng droit dinañ mën a leeral un peu parce que dossier bu nekk pendante devant la justice cour d'appel je pense que waruñ ci mën a def beneen délibération te vidé ñu dossier bi ba mu jeex moi je pense que loolu la dégg naa discours yi nag Ousmane peut-être il est dans ses droits le maire aussi il est dans ses mais man li ma jàppoon mooy mënoon nañoo def euh, une réconciliation mooy fexe parti civile bi ak beneen parti bi ñëpp toog ñu waxtaan trouver une solution def PV de réconciliation dem tribunal cour d'appel ñu leen juboo nañ ay doom ñun ñoo amoon problème ñun ñëpp digg na dañoo bëgg a raje procédure bi bu ñu rajee procédure ba pare après ñu xoolaat lu ñuy décider waat foofu def parce que boo xoolee euh, à travers ak li gaa li tribunal wax ne nañ ci faux délibération lañ ko joxee donc racine bi baaxul donc waruñu mën a defaat beneen délibération conseil municipal bees bi je pense que def nañ erreur foofu waruñu mën a defaat beneen délibération ci dossier boo xam ne dafa nekk devant la justice je pense que waroon nañ tenter une médiation ba lépp leer ñu doog a changer euh, option yi nga xam ne moom lañ fi bëgg def ñu changer ko. am na ci point yoo xam d'accord naa ci peut-être ñu ni doomu mbuur yu bëri investir nañ fa def nañ fa ay magasin loolu yëpp dëgg mais ñoom ñi di wax ni tamit est-ce que loolu nañ ko <laughs> bi Fallou que c'est les mêmes personnes yi wax ni doomu mbuur yi xas si la ci place publique bi waru ko jaay jaay na ko donc finalement après doo comprendre exactement nit ku nekk lan la gëm nit ku nekk lan mooy intention parce que les mêmes personnes yi wax ni doomu mbuur yi dañ fa am ay magasin ko toj nangam nangam les mêmes personnes ñoo doon critiquer si la démb bi bi mu amee problème avec euh, la justice ak euh, ñi nga xam ne ñoo doon xeex affaire place publique bi je pense que place publique bi dañ ko joxe woon par erreur waroon nañ ci waxtaan ak doomu mbuur yëpp jël ci leer ñëpp xam ni nii nii lañ ko joxee comme ça du am benn lënt-lënt ci ci xelu askan bi je pense que rien n'est trop tard solution war na mën am ñoom ñëpp ñu waxtaan seen biir ñu def une PV de réconciliation trouver ay solution régler problème bi à l'amiable mu nekk jàmm ci ñi fa investir jàmm ci monsieur le maire bi fi nekkoon jàmm ci monsieur le maire bi fi nekk ak population bi ñu xam ni ñëpp li ñuy dox rek mooy nu Mbour di avancer nu di développer xiiro beeg ŋaayo beeg xastante beeg saagante bi yëpp je pense que du apporter population bi dara quoi pertement rek lay lay lay jur quoi ay nit nag buñ nekkee ci dëkk c'est pas parce que kii jox na ma post wala daf may may xaalis ba du ma ko wax dëgg quoi man moom ku ma xam-xam ni euh, président Amérique sax bu taxawee bu ma amee lu ma ko lu ma xalaat dama koy wax président Abdoulaye Wade bi fi amee bu ñu amee xalaat duñ koy wax Macky président Macky Sall dañ koy wax suñu xalaat euh, loolu mooy démocratie man pour man euh, foofu monsieur le maire laay condamné quoi franchement parler pour dire la vérité parce que njëkk na ñëw rajo wax même discours bi. nit ñi jàpp ni erreur de communication la ñu bàyyi mu jàll mu jógee war foofu demaat ci forum bu mu jàkkaarloog ay ndawam tawaat fi waxaat fi même discours bi donc finalement day nekk acharnement day nekk attaque à ay mouvement de jeunes yu nekk biir Mbour man y compris parce que mouvement Mbour Guédiawaye ville je pense que même bu ma fa amul carte membre jàpp naa ne ci laa bokk parce que depuis première édition ba dernière édition bi ñuy yóbbu vivre ensemble ay vivre dama ciy nekk dama ciy ànd donc man monsieur le ma ci li mu wax noonu que ni collecter ay fonds pour dimbali dimbali nit d'accord ma loolu Marème fay Sall fondation Servir le Sénégal fondation la yore day collecter ay fonds di dimbali ay nit ñaata collecter la fi nit ñi di def dimbali benn malade bu feebar Mbour justice indi fa ay ay ay fonds collecter ay millions dimbali benn euh, mbuurwaas bu feebaroon mu dem faju ji France Mbour Guédiawaye ville yàgg nañ collecter ay dons yóbbu ko vivre ensemble néew ju doole yi dund ci. tubaa ci kanam dañuy collecté ay fonds di di liggéey biir Touba di ci dimbali ay néegi doole am na ONG yu gën a mag yu nekk Europe am na benn ONG bu nekk France bu ñuy wax après tout 93 pour cent 93 pour cent financement am yëpp euh, day jóge ci ay fondation ay donateur ay donateur mooy benn privé wala société yuy am ay don di leen ko dimbalee ñu koy dimbale ay nit chaque jour nga gis fi ket benn malade bu ñuy ketal parce que euh, pour war a dimbale ko ku nekk joxe sa 1000 ñu dem dimbale malade mu faju parce que lépp mënul mënu nit mënu ko am quoi donc d'accord ma ci monsieur le maire yooyu mu wax même su amee un problème avec le jeune frère Ablaye Thomas je pense que war nañ ma war na ko mën a woo en tant que frère am en tant que jarbaatam toog waxtaan ak moom leeral ko parce que Thomas gisuma fenn fu mu waxee discours bu garaaw affaire tali hôpital bi la wax rek ni ñoom par une communiqué wala réponse boo xamante ne vraiment du jar euh, détail parce que li ma wax <coughs> rek dama ni le président Cheikh Issa nekkatul nekkatul euh, président mouvement am dem léegi c'est le maire de tous les Mbourois mooy sama maire mooy sa maire mooy ki ko bëgg ak ki ko bañ ak opposition pouvoir yëpp mooy seen maire comme ci signéwul sa kayit ko doo am kayit kër ku ci am doom bu signéwul sa kayit sa doom du am kayit donc dama bëgg rek lancer ko un appel grand frère mu xam ni ñëpp njabootam lañ na xam ni doomu mbuur yëpp ki ànd ak moom ak ki àndul ak moom yëpp ci famille am lañ bokk parce que léegi moom mooy seen kilifa mooy seen leader élection dépassé nañ ko donc na jël ñëpp rek. mu dugal leen ci benn kër mu xam ne ñëpp sama njaboot lañ ki ma voteel démb ak ki ma voteelul ak ñëpp benn famille lañ ñu bañ di utiliser ay termes kii dafa soxor yooyu non loolu amul parce que nous sommes en politique am na xam du def ñooñu am nañ droit dénoncer ko comme moom ak ay partisans am nañ daan dénoncer Sira Ndiaye nañ daan dénoncer Saliou Samb nañ doon dénoncer Fallou donc jàpp naa ni nit ñi nekk fi tamit am nañ droit dénoncer te li ma koy conseillé mu ngi mu ngi nekk ci yoon mu ngi liggéey mais fekkee da ngay utiliser yenn termes yoo xam day andi yenn problème yi yow li nga liggéey du feeñ. bu rafet mooy toute la jeunesse mbuuroise action yi ñu def nii dañ leen ci war a encourager dañ leen ci war a gën a jàppale parce que ñaati néew ju doole ñooy am problème mu école wala am problème mu jënd ay ay dem seeti jeunes yi booy dajale xaalis fexe ba dimbal la nga dem faju ji. Mbourgueñement ville ñaata nit lañ fi dimbale ñu faju ñaata nit lañ dimbale ci ay bébé vivre ensemble même le maire Cheikh Issa ñaata yoon la dimbale jeunes yooyu yëpp ñu dem accomplir mission yooyu mosem affaire ambulance bi ay jeunes lañ gis ne hôpital Mbour amul ambulance ñoom ñu initier benn ket ni xaaral ñu ketal hôpital bi mu am ambulance ñoom ñuy ket ñiy participer na ñiy participer ba moom la monsieur le maire moom moom participer wu ci parce booy carrément du ma leen ñi participer na ñi participer wul ci diggante bi yàlla def na ma am solution bi ak sama yenn nit yu baax ñu ut benn ambulance xam ni mbuurwaay yëpp ñoo ciy jëriñoo mbuurwaay yëpp ñoo ciy faju mbuurwaay yëpp ñoo ci dugg ma ni mojam yéen ngi doon sonn ci benn affaire amagoon leen ko léegi yàlla def na man am nañ benn xéewal benn ambulance jël ko ngeen yóbbu hôpital ba au moins mission bi ngeen doon bi ngeen doon dox yàlla matal ko booy kontaan ci loolu ñu jox leen ko ñoom ñu yóbbu ko jox ko hôpital man bi ma leen ko jox sax dama wax ni yéen a ko jënd bu leen sax tudd mais ñoom ñoo am initiative wu ñu wax ni ñu ñoo leen ko jox mais su ma amul lu ma gënal day mel ni ñoom ñoo ko joxe te ñu defee loolu tamit ku dee ba lay tëdd su ma deewee sama bàmmeel lay tëdd Ablaye Thomas ñoom def nañ seen calcul yëpp ni am nañ tant de xaalis dañoo bëgg a rencontrer directrice hôpital bi xool nu ñuy def ba utiliser xaalis boobu ñu collecté woon pour hôpital bi. président Macky Sall na fàttaliku 2011 biñ tegee 23 juin 2011 niñ sonne woon. pour Macky Sall car euh, bloquant du am ñu jóge ci xeex pour troisième mandat ba ci la président Macky Sall moom bokkoon ñiy xeex troisième mandat Ablaye Wade Mamadou Diop suñ doomu dëkk yàlla na ko yàlla yërëm te yéexee ñu ci wetu président Macky Sall la wàcc àdduna parce que troisième mandat la doon xeex ñu jóge ci loolu amul benn doomu mbuur man bu ma xalaat ni war nga taxaw di promouvoir troisième mandat intérêt personnel wala post bu ñu la jox waru ko waru waru ko jar président Macky Sall dafa soxla ñu ko conseiller ne ko ah. après président am nga beneen vie boo war a mën a def budul président te encore jeune mënoo toogoon fii di xeex benn affaire ba organiser i 2016 uniquement pour limiter mandat yi toog ci télé yëpp wax ko nga ñëw taxaw ay nit naa la am nga droit troisième quinquennat wa quatrième quinquennat wa terme naxaate yooyu loolu pour man ñi bëgg président Macky Sall ñoo koy conseil troisième mandat ñu euh, ko mandat ñi nga xam ne ñoo ko bëgg nag ñoo ko naan ah man de su ma sañoon nga bàyyi nga ut beneen candidat nga teg ko nga jàppale ko parce que loolu tax démocratie bi continuer parce que coup d'état constitutionnel yi souvent toujours mooy andi des coups d'état militaires yi am ci àll donc je pense que la meilleure des solutions mooy président Macky Sall ut beneen candidat teg ko mu remplacer ko mu dem élection que le maire gagne mais amul kenn ku dëkk ci mbuur fii ku war a taxaw sax di wax troisième mandat ñu xool ci Mamadou Diop mi nga xam ne rond-point bi moom lañ ko tudde muy suñu doomu dëkk bi muy génn àdduna xeex troisième mandat moo ko taxoon a génn àdduna au moins ñu rus Mamadou Diop boobu bañ a xool ay intérêt ak ay poste personnel ak ay nomination loolu yëpp ci àdduna lay yem ñun ñëpp dañ ko fi bàyyi te dem donc lépp war na mën a rafet daal ñu xam ni Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar man mii kenn gënu ma woon sonn 2011 ci président Macky Sall combat yëpp dama doon taxaw boo xoolee sama page Facebook ba 2012 2013 j'ai été un soldat du président Macky Sall parce que yaakaar guñu am ci moom la pour Sénégal te yaakaar googu infrastructure kenn waxatu ko wax waxeet yeeg changé affaire yeeg loolu ci li ko war donc nañ koy ñaanal rek mu organiser élection 2024 dem ci jàmm ak salaam yàlla defal ko xéwal je pense que c'est la meilleure des des solutions